waaw Sénégal njaay yi rawatina mbokki dëkk bu sell ba di Touba ak li ko wër seen jaaxle jeex na ci wàllum essence d'arsan waaw waaw bureau d'essence nekk ci Touba marché Ocass fañ naan marché fraude waaye nag route ba nga xam ne moom lañ duppee oro muy route d'oro waaw xale yu baax yu yaru xale yi am fulla am fayda te nag nekk ay taalibe am respect lool ci seeni client waaye nag di leen jox wàcc waaye wi ñuy yelloo ma ne yow mi nga xam ne da nga yor euro bëgg ko changé def ko CFA yow mi yor dollar bëgg ko changé def ko CFA mbaa sax nga yor CFA bëgg ko def yi ñaax ma ne waa bureau de change dañ la ciy taxaw nga def ko nam waree ngir jokkoo ak ñoom jokkoo ak sergent bii di Serigne Bakeloo ci 77 591 74 17 wala nga jokkoo ak moom ci 76 591 74 17 bureau d'essence nekk ca Touba marché Ocass marché Front les immigrants di Bawal sa c'est votre sens profitez-vous plus vite loolu laa leen wax de ma ne leen ku yéex ñàkk xale yi yaru man seenub liggéey moom dañ leen war di seeti di leen nemmeeku ndax ñooy ñi ko yor. une heure di benn waxtu ci bëccëg toftal na fanweeri simili fii ci groupe Mouhalim numéro 2 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auditeurs yu Mouhalim Info ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fu ngeen mën di nekk ci biir réew ak ci bitim réew wala groupe Mouhalim di fi taataane ay xabaar tey àllarba fukki fan juróom-ñaar ci weeru janvier dëppoog juróomi fan ci weeru rajab ñu yeggee li ñu am ci xabaar ki subaak léegi Saint-Louis Macky Sall va inaugurer le nouveau siège de la BCEAO kilifa réew mi son excellence président Macky Sall chef de l'État ña ngi koy xaar ca Saint-Louis aljuma ak yu dënmal war faa dem nag ngir daloo fa daluwaay wu yees bi nga xam ne def nañ ko fa ñeel BCEAO BCEAO di banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest boo xam ne defar nañ ko foofee daal ci yoon wi euh, ci route bu xor foofee ca Saint-Louis kon président Macky war ko daal di daloo waaye itam ci beneen côté bi bu ñu sukkandikoo ci APS mu joxe xabaar bi itam daan ne président Macky Sall itam war naa jullee aljumaa foofee euh, euh, ca Ndar ci grande mosquée bi nga xam ne kon bu baax bu yees la wala boog bu ñu doon defaraat la te defaraat gi sax daal di egg kilifa réew mi ñoo ngi koy xaar ca Saint-Louis aljumaa gi dënmal bu ñu sukkandikoo milliards transférés comme bourse de sécurité familiale de 2013 à nos jours Macky Sall réew mi son excellence président Macky Sall chef de l' état démb ma nga woon ko jam ñaajo doon fa jiite première journée nationale de l'équité mooy journée bis bi xam ne dañ ko jagle daal wàllum équité sociale foofee président Macky Sall kon teewoon na ki doon jiite ndaje ma xam la fi itam yu am solo yoo xam ne jot na ko def ci wàllu gu mel ndax kat wàllum équité sociale et territoriale dafa bokk ci plan Sénégal émergent lu émergent lu ci am solo président Macky Sall nag ci journée boobu moo la di xam ne kon am na ay liggéey yu ñu ko a def jaare ci wàllum bourse sécurité familiale di programme bi nga xam ne bi mu ñëwee ci bopp réew weer yu nekk muy làmb ci euh, jibe ji nga xam ne Sénégal ñoo ko moom di ca tibb di jox ñi nga xam ne ñoo néew doole ngir dimbali leen jaare ko ci wàllum équité sociale lu toll ci 268 milliards muy ñaar téeméer rek juróom benn fukk ak juróom-ñett ci ay milliards 2013 ak léegi président Macky Sall kon jot na koo jébbal ñi néew doole jaare ko ci wàllum euh, bourse sécurité familiale ba tey kilifa réew mi itam wax itam yeneen initiative yu bari yoo xam ne def nañ ko ñeel euh, toll ci ay millions ci réewum Sénégal yoo xam ne kon yitte woo nañu ci ñeen li ñuy wax wàllum services sociaux yi nga xam taxawal nañ ko ñu def ko ngir ñi gën a féete euh, daal ñàkk ñi gën a sori ci réew mi te seen loxo xaw a néew maanaam daal ñu xaw a néew doole ñu di leen taxaw bokk na ci lu mel lu ñeel wàllum couverture maladie couverture xam daal léeg-léeg xale yi nga xam ne dañuy door a judd ba am 5 ans ku ci dem ci fajukaay yi doo dagg euh, billet loolu yëpp bokk ci politique sociale bi nga def na ko ci réewum Sénégal bi mu fi nekke yooyu bokk na ci kon euh, yi nga xam ne misir yi nga xam ne kon xam ne ko foofu ne def na ko waaye nag fausi ca yéene yam président Macky Sall ndax daal nee na foofee xam ne ne dafa am benn beneen euh, jumtuwaay boo xam ne tey ci wàllum social lay dox mooy li ñuy tuddee caisse autonome de protection sociale moom daal daf ko fas yéene def itam lépp rek ngir gën taxaw daal ñi nga xam ne dañoo néew doole nekk ci réew yi wala bokk nekk fi gën a sori ci réewum ah, Sénégal bu ñu sukkandikoo ci présidence de la république ñu ñoo joxe xabaar bi xam ne nañu daalaka xam nañ daal daanaka ci quatorze réew Sénégal fu ci nekk nit jigéen a fa daal di ah, ñëw am nañu fa jóge bokk ay nit jigéen nañ fa ñëw ngir teewe bis bi ñoom nag ñëpp ku ci nekk ba nga ñëwee daal wax nañ ne daal président Macky Sall mii moom bi mu ci bopp réew day fàttewu leen taxaw na leen ca gën jaa Euh, ma euh, nam ko mën a daal ci wàllum ndimbal ñoom ñi nga xam ne ñoo xaw a néew seen loxo daal jot seen di ginnaaw Mouhalim Amadou Ba pose ses condition pour demarage redémarrage du bateau Aline Sitoé Diatta daanu yàkkale xabaar bi ginnaaw bu ñu leen fàttalee mbokk mi di jaay ay bâche réservoir d'eau muy bâche a denc ndox mu bari yow mi faral di am jafe-jafe ndox bëgg foo ko denc wala lu ñu la wàccaay màggal Poroxaan yéen ñi nga xam ne ki dal yi ngeen di nekk di ngeen di faral di am jafe-jafe ndox bëgg fi ngeen denc am ndox muy day réegi ni mel jàppandi na ci Serigne Ahmadou Diaw moom nag mi ngi ci Touba marché Ocass fi jàkkaarloog place Cheikh Sow neex Sow baas la nag yoo xam ne mën naa denc ci euh, huit jàpp dix mètres ki budoo képp koo xam ne tuwoon na ci kon mën naa dem Serigne Ahmadou Diaw wala moo ko ci numéro am 76 847 48 89 76 847 48 89 Elimane jëwriñ réewum Sénégal daal di jox ndigal gouverneur de la région bu Ziguinchor di Mor Talla Tine mu convoqué ci na mu gën a gaawee lañ ko jublu nag mooy ñu gaaw présenter gouvernement bi daal benn plan boo xam ne lañ ci sukkandiku nag ngir mën a tàmbaliwaat daal dem ak dikk bi ci bato bii di Aline Sitoé Diatta bi nga xam ne day doo ci diggante Dakar ak Ziguinchor te ñu taxawaloon ko depuis mois de juin bi ñu génn Amadou Ba wax ne bato bi ñu ngi ko taxawaloon nag pour des raisons de sécurité waaye daal fi mu ne nii jox nañu ndigal gouverneur bu Ziguinchor gouverneur région bu Ziguinchor mu daal di euh, dajale ci na mu gën a gaawee commission de sécurité ngir nag daal euh, fii ak semaine bi jeex bu ko defee bu ñu ci noppee lañ ci tënkee ñu gaaw présenté gouvernement bi su ko defee nag ñu mën a sukkandiku ci plan boobu yi ngir nag boto bi mën a tàmbalee da demaat euh, ci diggante Dakar ak Ziguinchor nga xam ne moo taxawee léeg léeg mu yàgg loolu nag Elimane jëriñ mi ngi ko xamle mu doon daloo poste de santé bu Fanda nekk nga xam ne jamono ji moom Elimane jëriñ Réewum Sénégal ma nga fa di amal ab pour ne économique bato bii di Aline Sitoé jaata moom nag daan doo ki diggante Dakar ak soor dañ ko taxawaloon depuis mois de juin bii ñu génn ngir daal fàggandiku ci wàllum kaaraange jaara ci yëngu-yëngu yi amoon ci réewum Sénégal keroog bi ñu condamné woon Ousmane Sonko ci mbirum euh, euh, Adji Sarr kon ci la ñu ko taxawaloon ngir ñeen wàllum wàllum wàllum sécurité waaye daal Amadou Ba nee na yàggatul kon ñu joxe dat bi nga xam ne ci la bato bi tàmbaliwaat dama ko dikk nag dañ koy def nag ci ànd ak kaaraange ga ca war Amadou Ba wax ne xam na ne bu baax bato bii lu yitteel la askanu Ziguinchor donte sax Ziguinchor ñoom am nañ yeneen matuwaay ngir maa dem ak dikk am nañuy avion am na itam biis ngir dem ak dikk waaye nag ah, dina gën a am solo ci ah, ñoom mooy bato bu maanaam jumtuwaay dem ak dikk yëpp daal di jàppandi moom ah, nee na Ziguinchor nag mooy région bi nga xam ne mooy benn région ci Sénégal boo xam ne am na ñaari aéroport benn bi di aéroport international benn bi itam di aéroport boo xam ne euh, euh, daal euh, pour ci réew meeg yu mel la ak itam benn port maritime loolu yëpp nag li ci dañ ko dafa war a kon nekk loo xam ne day amal njariñ xale ya nekk ci réewum ya nekk fa fekkee Ziguinchor ngi ñu am am ci lu a jàpp jaar ci wàllum tourisme ci wàllum transformation agroalimentaire wàllum itam li ñuy wàllum gën a valoriser culture ak itam tradition yi nga ne am na foofee ci Ziguinchor waaye itam nee na bokk itam ci yitte yi nga xam ne itam daf koy bokk ak ñëpp itam tey itam mu nekk loo xam ne yitteel na ko lool mooy fexe daal def lépp lu ñu man ba jàmm gi sax dàkk amaat ca Casamance bu ko defee nag naataangeeg njëriñ yi nga xam ne am na ko Sénégal yëpp mën cee gis seen bopp ndax jàmmi Casamance Sénégal gépp ko bëgg Mouhalim Amadou Ba veut aller à la présidentielle avec tout sauf avec Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye ñu yàkkale xabaar boobu itam ginnaaw bu ñu sante baax gërëm bureau d' euro et dollar waa kër Sëriñ Mbàkke Madina loo et frère di ci wàllum essence monnaie maanaam wecceeku xaalis yow mi yor xaalisu bitim réew mën dong bëgg koo soppi def ko CFA moo xam muy euro di dollar xaalisub Angleterre xaalisub Maroc mën nañ la cee taxawu wala itam nga yor xaalisub CFA bëgg koo soppi xaalisu bitim réew mën dong itam mën nañ la cee taxawu ñoo ngi ci Touba marché Ocass wetu marché Forot seen numéro téléphone di 77 691 74 17 77 691 74 17 ngeen jokkoo ak Serigne Bakilo numéro boobu itam mooy Tigo bi li leer te wóor nee ñu candidat benn bokk yaakaar bii di Amadou Ba. daa bëgg a dem ci présidentielle 2024 yi ci loo xam ne daal du affronté kenn koo xam ne candidat la bopp Ousmane Sonko moo ko daal di euh, désigné ku mel ne Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye coalition Benno Bokk Yaakaar ki ko ci boppu euh, seen candidat ak seen candidat bi di Amadou Ba daal nañuy déposé ay réclamation ca greffe bu conseil constitutionnel monsieur Amadou Sall nekk membre ci coalition bi moom moo ñu woon présenté ci conseil constitutionnel en tant que avocat nekk itam euh, en tant que avocat kon daal moo ñëw ngir defendre intérêt yu candidat Amadou Ba bu ñu sukkandikoo nag ci xabaar yi nee ñu monsieur Sall mii di monsieur Amadou Sall yaakaar naa yéen ñu nekkoon na ci euh, euh, gouverneur président Abdoulaye Wade nekkoon na ministre de la justice moom kon moo daal di ñëw ngir daal def quelques réclamations ci ay lenn ci ay principe ñenn ci ay candidats yoo xam daal jàpp nañu ne waruñoo mën a bokk ci mbir mi. nee ñu nag joxewul benn turu candidat journaliste yi laaj na ko laaj ko laaj waaye daal nu nga wuccee ah, wax moom daal nee na nañu bàyyi conseil constitutionnel après dina publier requête yi nga xam ne déposé nañ ko bu baax nag li ngeen ci gis nga xam ne noonu a demee waaye buñ sukkandikoo ci kër sa xabaar gii di le quotidien day nee na ñooñee ñu réclamé ne daal waruñoo bokk ci élection présidentielle yi du kenn ku dul Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye nga xam ne Ousmane Sonko moo leen désigné ko daal di xamle ak lu mën di xew daal ñoo ngi xaar kon conseil constitutionnel mu daal di nag wax ci liste définitive yi nga xam ne ñoo nar a dem daal euh, euh, wala bokk ak lu mën a xew ñoo ngi xaar conseil constitutionnel daal di wax kon ci recours yi nga xam ne yóbbu nañu ko foofee avant le 20 prochain le 20 ci la war a publier publie défini euh, maanaam liste bi avant boobu dina nag wax ci recours yi nga xam ne andi nañu ko foofe ci fàttali lu ci Mouhalim Info mbooleem ñi nga xam ne ay candidat lañ te jàlloon muy nag ñu ñëw ngir daal mën a andi ay tontu ci réclamation yi nga xam ne ay candidat def nañu ko démb bari na sax am nañu dem ba wax sax ne euh, Amadou Ba jot naa réclamé ci ki nga xam ne moo di Souleymane maa ngi ji euh, Ali Ali Nguy def na ko ci moom ak ki nga xam ne itam moo di def na ko ci Ali Nguy Ndiaye ñu def na ko ci Ali Nguy Ndiaye waaw xaama dëgg bakal boobu ñu wax waaw réclamation bi nga xam ne kon Amadou Ba nee def na ko démb kër Cheikh Baye tey jii li ñu xëy bindee nee ñu réclamation yi bokk na ci Ali Nguy Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Mouhamed bin Abdoulaye Dionne ñoom moom wàllum crise fiscale moo waral mu réclamé mu def réclamation ci ñoom jàppale wu ñu jàll bu dee nag ki nga xam ne moo di ah, Bassirou Diomaye Faye moom ne ñu dafa def réclamation ci moom en tant ko koo xam ne dafa bokkoon ci parti ñu daal koy tas kon moom wut a bokk bu dee Cheikh Tidiane Dièye nag ñëwuñu lool lool ci naka la naka la ñu wax daal ci la réclamé waaye daal wax nañ sax ba wax ne Déthié Fall sax def na ci réclamation loolu kon bokk ci xabaari auditeurs yi Mouhalim Info reprise du contrôle des parrainages des candidats recalés sollicite l'aide de Macky Sall ginnaaw bi nga xamee ne ay recours yu bari déposé nañ ko ci diggante altine barki démb ak talaata démb fecc ak greffe bu conseil constitutionnel collectif bi ëmb candidat yi ñu rekkale day ñoom bind nañu kilifa gi réew mi son excellence président Macky Sall ngir daal ñu tàmbaliwaat vérification yi ñeel parrainage yi ñoom day jàpp nañu daal ay manquement yu doy waar moo daal di am ci bi ñu doon saytu wàllum parrainage yi ak itam logiciel bi nga xam ne moom la commission bi doon utiliser wala kon ñu bind ab message xamal ko ne ko yow excellence monsieur le président de la ñun collectif bi ëmb candidat yi ñu invité jaar ci parrainage yi gis nañ daal ay mbir yu doy waar yoo xam ne am na ci biñ doon gëstu na ay parrainage yoo xam ne jàpp nañ ne daal te am na ci gis nañ itam ne fichier bi daal mise en bi ci woon am defuñu ko ba ñu bëree bay dañoo ñëw ñu ne leen yéen nekkoo leen ci fichier bi ak yu ni mel yu daal yoo xam ne ñu seetlu nañ ko ci mbir mi neen ñu ko nag yow kilifa gi en tant que koo xam ne yow la ñu dénk nga war a saytu institution yi mu doxe ca na mu war a doxe gis nañ daal ay manquement yu bëree baree bëri ci mbir mi léegi nag li ñu lay ñaan mooy dañoo bëgg nga jël dogal wax ñu tàmbaliwaat contrôle parrainage bii bu ko defee nag xàq ji ñu ma xañ ñu mën ñu koo ah, delloowaat ndax daal ah, jàpp nañu ne daal lii nga xam ne kon moo am ah, ba daal demewut noonu loolu day la collectif bi bind ki ngi de soxna Aminata Touré ñeneen ñi mu àndal ñi ko bind sax bari na daanaka daanaka candidat yëpp daanaka même am nañu jàll sax te bokk nañ ñi bind lettre boobu kon daal nee ñu bind nañ ko jox président mak Sall ngir nag mu daal di bàyyi xel ci li dal ngir nag daal xoolaat ñu mën a tàmbalaat reprise euh, euh, euh, contreprenance bi ngir mbir mi daal mën a teg ci aw tegu ci aw yoon ndax gis nañ ci ay manquement yu bëree baree bëri Mouhalim Info amul benn manipulation bu am ci fichier électoral bu réewum Sénégal kaddu yi Mame Mbaye Niang ministre du tourisme Mame Mbaye Niang daal dinay weddi fan yi ay wax yi ñuy wax ñeel fichier électoral bu réewum Sénégal bi nga xam ne ci la ñu war a demee ci la ñu war a demee élection 2024 day am ñuy wax ne daal dañ ko daal di peese def ci ay mbir ngir mën caa jaar gàllankoor leen ci ay candidat Mame Mbaye Niang ne daal jot na nag ca dëgg-dëgg ñu daal di nag wax li am ñii nga xam ne dañuy génn daal di wax ay wax itam ñoo xam ne li ñuy wax amul manipulation bi ñu wax ne daa am ci fichier électoral bi ngir mën caa jaar gàllankoor leen ci ay candidat éliminer leen nee na daal loolu moom amul mi ngi ko xam lee ci RFM rajo Futurs média nee na nag d'accord naa ba Euh, fichier bi kon fii ak fukki laata fukki fan fukki fan avant élection yi ñu daal koy jébbale ñu mën cee jot ngir mën cee amal liggéey kenn ku nekk daal war ko euh, jot ngir nag mën caa sukkandiku ngir waajal élection présidentielle yi waaye nag lan cee wax naan dañ koo daal di euh, dañ caa def ay mbir dañ ca PSC ngir mën caa jaar gàllankoor ñun moom mbay maam mbay ñag neen amul neen itam d'accord na ba tey tam daal ñu toog waxtaan ndax bu fekkente ne dañoo dëdmal élection ay coow tàmbalee am neen itam d'accord na ñu toog waxtaan waaye nag nañu xam ne li ñuy wax ci fichier électoral moom amul dañ koo manipuler ngir euh, éliminer leen ci ay candidat moom loolu amul ci fàttali nag auditeurs yi Mouhalim Info candidat yi ñu recalé wax naa leen ko léegi ñoom euh, euh, collectif boobu dañoo bind président Macky Sall ngir sàkku ci moom waral leen di wàllu daal fexe daal ba ñu xool naka la ñuy defaraatee mbir mi ñu bàyyi leen ñu defaat ñu defaat contre ndax jàpp na ne mbir mi jaarul yoon am na ci ay manquement yu ci nekk ci biir fiche électorale bi bokk na ci mooy dañ ko mise à jour te bu fekkee mise à jour ko am na ñoo xam ne dañoo bindiwaat yees ñii woy primo votant li fi yeeg fichier bi miitan suruñu ko ñoom duñu mën a dugg loolu moo waral ñenn ñi ñu parane ay ñib ba nopp ñi ñëw ñëw leen ñii nekkuñu ci fichier bi te fekk nag ñoom jox nañ leen ay carte d'identité lu ci mën di xew daal conseil constitutionnel moom moo yor kàddu gu mujj gi le 20 euh, janvier bi mu dëdmal Mouhalim info Thierno Alhassane Sall répond à Karim Wade ñu yàkkale xabaar boobu ginnaaw bu ñu leen fàttalee suñu partenaire bii ji Touba aviation tourisme di yëngu ci wàllum tourisme durable di jaay ay billets d'avion ci bépp compagnie di bëgg assurance ci bépp anam location de voiture luy ay oto transfert d'argent yónnee wala jot xaalis ci biir réew mi ci bitim réew sans cambio da yor euro wala dollar bu ko def CFA wala nga yor CFA bu ko def euro wala dollar réservation d'hôtel dañ ci yëngu seen numéro téléphone di 33 975 20 55 77 643 27 70 adresse email ahmedou 94 arobase gmail point com ñoo la réponse du bercé à la bercé candidat Thierno Alassane Sall xaarul ngir tontu Abdoul Karim Wade ginnaaw publication bi nga xam ne def na ko démb ci Twitter di ko jaajafal ci xamal gi nga ko xamal daal ne ko sa tur mi ngi ci fichier électoral ba léegi bu réewum France waaye itam daal di xamle ci euh, euh, tiit boobu moom Abdoul Karim Wade ne preuve bi firndeel ne daal dinay nag perdre nationalité française ko yóbbu na ko fële ca conseil constitutionnel jébbal ko set saa si jaare ko ca mandataire bi di Maguette Sy loolu yi nag Thierno Alassane Sall tontuwaat na ko ci nee na ko saa waay kayit génneel kayit yi moo gën a moo gën a gaaw saa waay génneel kayit yi moo gën a gaaw moo ko itam daan na ko yow day ci li nga def li nga wax démb dèjà kon wane nga ni yow man maa la gën a informé maa la gën a xam situation administrative bu réewum France ndax daal li ngay wax mel na yow li nga wax dem la kon xamoo woon sax li xew en daal lu mën a xew maa ngi lay xamal ni mboolem élément yi nga xam ne jaadu na war naa ko yóbbu ca conseil constitutionnel dajale naa yëpp yóbbu ko fa te am naa yaakaar ni conseil constitutionnel de dem ba jusqu'au bout te bu demee nag ba ca pàndoo ko moom la muy tekki mooy yow doo mën a bokk ci élection présidentielle rek tontul Thierno Alhassane Sall Mouhalim Info. manquement de certains médias le CNRA sort encore le gourdin sénéra génneti na yat wi di dànkaa footi lenn ci kër see xabaar yu nekk fii ci réewum Sénégal ci ay manquement yoo xam ne seetlu nañu ko fan yii ñu di ko def ne nañu nag ay manquement yu grave la CNRA nag mooy kër gi nga xam ne moom la ñu fi teg ngir mooy saytu doxalin ak liggéeyu kawtukaay xabaar yi fii ci réewum Sénégal ñoom nag nee ñu gis nañ daal fan yii ci lenn ci kawtukaay xabaar ñuy jàllale ay message de soutien maanaam daal ñoo xam ne kawtukaay xabaar yoo xam ne jàllale ay message yoo xam dañuy mel ne ñuy jàllale ñuy jàppale benn pàcc ci candidat yi bëgg a bokk présidentielle 2024 loolu nee ñu jaaduwul de ñaaral bi tam nee ñu gis nañ léeg-léeg ñu invité ay débat yoo xam ne dañuy invité ñenn ñi bañ ci des loolu tëddewul njaaxaanaay mu jàpp ne itam loolu tamit jaarul waaye itam ay message yoo xam ne dañ koy jàllale yooyu mën naa andi fitna ci nit léeg-léeg ñu exposé exposé ci benn antenne foto nit koo xam ne moom dafa jël ne daal man damaa fa yéene ànd ak euh, euh, candidat sangam wala damaa fas yéene ànd ak candidat sangam ñu du ko génne mel ne ku koy jaxaseeg penc mi ngir ëllëg lu nekk mën na ko caa dal loolu yëpp nag général nee na kër say xabaar yi koy def la ñuy def jaaduwoo ba jaaduwul yoon te koy bàyyi nañ ko bàyyi loolu nag général nee na wax na ko te mi ngi koy fàttali bépp kër see xabaar goo xam ne nag respecté woo loolu yi am na ay sanctions yoo xam ne concerné na mbir mi te mën nañ koo teg sa kaw général mi ngi woote parce que kër see xabaar yi ñu ànd ak responsabilité respect ci yi nga xam ne moom la ñu teg ci bépp kër see xabaar mu mbay bàyyi wàccoog moom rawatina nag ci période bi nga xam ne ci la ñu nekk muy période pré campagne amul benn parparloo benn message boo xam ne day wane ne candidat bii moo gën wala bii moo baax bii baaxul yooyu moom actuellement période bii dañ koy tere Sénéral nee kon ñoo ngi bàyyil wax xel kër sa xabaar yi ñu bàyyi ci xel baax a baax wattandiku di jàllale wàllum propagande wala wàllum message yoo xam ne message yoo xam ne daal day wóotu nit ñi ci wàllum en ak mbañanteeg yu ni mal yooyu yëpp daal nee ñu jaaduwul waaye itam tëgg tëdd njaaxaanaay ñoom journaliste yi ci antenne yi bu ñuy euh, amale invité wala ñuy am amal seen i mbir ñu wane tëdd njaaxaanaay te bañ a wane benn yoon ne daal ak parparloo bañ a fenk seen i mbir nee daal gis nañ ci kër sa xabaar yenn yoo xam ne la ñuy doxalee jaaduwul te ñi ngi leen di dànkaafu te nag bu continuer daañu leen sanctionné nañu teg mbir mi ci yoon te respecté période bi nga xam ne ci la ñu nekk CNRA moo génne communiqué di ci dànkaafu kawit see xabaar yi loolu nag bu dëkkul reste nee na sanction nee ñu sanction yi mi ngi ñëw Mouhalim Info la dernière demande de liberté provisoire de Oustaz Assane Seck rejetée sàkkuwaatoon na beneen bàyyum négandiku waaye gàntalaat nañu ko muy Oustaz Assane Seck di jàngalekatub diine bu nekk ci Sen TV jamono ji am jafe yoon ba ñu téye ko bii nag mooy juróomeelu yoon nee ñu muy sàkk ngir ñu may ko liberté provisoire àttekat bi di ko gàllankoor bu ñu sukkandikoo nag ci libération nee ñu ab dossier sax moom Oustaz Assane Seck mii actuellement nii moom daal nañ koy collecté tëj nañu ko ba jébbal nañu ko parquet bi procureur ngir nag mu def réquisitoire définitif laataa nag àttekat bi di jël ban dogal la ci am imma mu yóbbu ko kaso wala kon mu def ko non-lieu moom nag ñu ngi ko place su mandat de dépôt àttekat bii di euh, bi nekk ci deuxième cabinet di Mouhamadou Seck moo ko daal di def déglu woon nañ ko nag au fond ci euh, li nga xam ne moo di dossier bi àllarba ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre wala ñu génn moom mii nag attekat bi mi ngi koy toppe atteinte à l'assiette de l'État appel à l'insurrection acte et manœuvre à troubler l'ordre public ay weer a ngi ni nag mu nekk ci kaso bi sa Seck mi nag ci fàttali waa sécurité urbaine ñoo ko jàppoon jàppee ko ca Sébi Xutaan ginnaaw benn émission télévision boo xam ne defoon na ko daal waxoon ci wax yii dafa waxoon ni soit Ousmane Sonko nekk candidat bokk ci e yi gañe ko wala Ousmane Sonko du nekk du nekk candidat réew mi tàkk loolu daal lañu koo jàppe di ko toppee tuuma yooyu auditeurs yu Mouhalim Info kon sàkkuwaatu na benn beneen beneen demande liberté provisoire gàntalaat nañu ko ab dossier am tëj nañu ko fi mu ne nii nag moom euh, mi ngi des nag ci attekat bi mu yóbbu ko ñu atte ko wala mu def ko nooliyee moo ci des ginnaaw bu procureur tontee ci li mu ko jébbal mu war a def réquisitoire définitif Mouhalim Foundiougne le réseau de trafic de migrants commandé par un étranger démantelé brigade territoriale bu Foundiougne amal nañu liggéey bu am solo daal di démantelé benn réseau boo xam ne réseau bu mag la bu yëngu ci wàllum trafic de migrants ñoom gendarme yi nekk ci compagnie bu Fatick ci njiital capitaine Top dal teg loxo lu toll ci vingt-huit candidats à l' émigration clandestine ca ñooñee kenn ki doomi réew Guinée Bissau la fukk ak juróom-ñaar yi di doomi réew Sénégal fukk yi di doomi réew Gambie xabaar bu ñu sukkandikoo ci Sénégal ngi sukkandikoo ko ci DIFICOM la bokk DIFCOM ci dynamique bi nga xam ne fan yi ci la kilifa yi nekk mooy gàllankoor immigration irrégulière bi kon ci la waral brigade territoriale bu Foundiougne kon organiser benn opération ci la nag demee nag ba démantelé réseau bi nga xam ne réseau bi mag la kon di yëngu ci wàllum trafic de migrants nga xam ne ay sénégalais ñi ngi ci waaye itam koo xam ne itam mooy étran ab étranger moom sax nee ñu mooy cerveau bi ñii nu jàpp nag ña nga jàppoon a départ jël géej gi dem ca Europe fukki fan ak juróom ci weeru janvier wi nu dënmal euh, waaye la ñu bëggoon mu juuta jàppandi ña ngi ko bëggoon defe nag ca KDPS bu Foundiougne cerveau bi nag kon mi nga xam ne daal moo ko moo moom mbir mi nee ñu ab étranger la moo daal di moom sax boto bi nga xam ne ci la ñu a jël kon teg ci ñi xam ne ñoo di migrants yi am itam ci opération boobu benn moto boo xam ne nañ ko loxo bu sukkandikoo ki seen mi sukkandiku ci leet na colonel Ibrahima Ndiaye ci xabaar yi ñu mujjee am ñoom waa Sénégal nee ñu ñoom ñooñu nag ginnaaw bañ leen jàppee ñoom candidat yëpp bañ leen digloo bàyyi nañu leen ñu dem ba mu des ñaar ñi nga xam ne ñoo tegooni pexe ngir yóbbu leen jamono ji nag ñoo ngi ci garde à vue ca locaux yi gendarmerie bu Foundiougne Mouhalim Info le pasteur accusé du massacre de Sakahola va poursuivre pour terrorisme loolu yi réewum Kenya la ñel kon ñoo ngi ci xabaar yi ñeel bitim réew auditeurs yi Mouhalim Info kii ab pasteur la bu ñu wax ne jafe-jafe la am ak yoon fee réewum Kenya pasteur nag boo ko déggee dañ koy faral di wax ci ñu wàllum labbeeg yu ni mel daal façon xeet yu mel noonu la ci wàllum diine diine christianisme comprendre ma dëgg-dëgg nag lan mooy euh, daal définition pasteur waaye ci euh, fànn googu la moom mi nag di wekk turu Paul Paul Tenge Mackenzie dañ koy topp foofee ci réewum Kenya wàllum terrorisme jaar ko ci meurtre mi ngi ci kaso bi nag depuis avril 2023 ab enquête bu ñu ubbi ci faatu 429 personnes ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ak yeneen 94 personnes yoo xam daal dañoo faatu loolu yi nag procureur kon moom la ko tuumaal ba di ko ci topp wàllum terrorisme moo ko daal di xamle ginnaaw daal procureur bi mu defee daal ay enquête am yu xóot a xóot daal dinay gis ne daal moom mii di euh, pasteur bi di po euh, di Paul Mackenzie mii gis na na daal euh, mbir moo loolu xew ba ñoo ñi faatu loxoom génn ci ginnaaw boo xamee daal dafa taxawaloon benn euh, secte boo xam ne moom moo ko jiite woon euh, ci wàllum daal secte boo ko déggee mooy benn kuréel goo xam ne dañuy yëngu ci waa maanaam taxawal benn mbir ci wàllum yëngu wàllum diine gi mel dana ko ci dana ko faral di wax maanaam sect léegi nag bu ñu ko sukkandikoo ci RFI communiqué bi procureur génne moom mi kon tuumaal nañ ko ci ñoo ñuy faatu ne daal loxoom génn ci ci fàttali dafa am benn massacre bu amoon ca Sakahola ci benn forêt bu nekk ca Kenya nga daal foofu nee ñu benn secte boobu bi mu jiitoon ñoo fa nekkoon nag eh, nekkee woon fa nag ci wàllum koor gu maanaam koor gu métti lañ daan nekk daal doon amal koor gu méttee métti ngir daal mën a gisanteeg Jésus Christ mi nga xam ne mooy seen eh, kilifa looyu daal eh, ginnaaw bi daal ci la ñu wax ne ak ay bakkan root na ci toll noonu yi loolu nag daal di secoué daal jur coow ca réewum Afrique loolu nag waral ki nga xam ne moo di procureur di ko toppee wàllum terrorisme moom Paul Mackenzie mi ñu ne ab pasteur la foofee ci réew ma xabaar bu ñu sukkandikoo ci RFI Mouhalim If coow ubbeeku na ci diggante réewum Pakistan ak réewum Iran ginnaaw bi nga xamee ne Pakistan dañoo tuumal waa Iran ni dañoo faat ñaari xale ci seen territoire muy seenum réew daanu yàkkale xabaar bi ginnaaw bu ñu santee baax gërëm suñu partenaire bi di seenum technologie njàpp ma soxna maam jaar bu lay di yëngu ci wàllu médecine traditionnelle chinoise ak seen appareil analyseur quantum bu xarañ bi nga xam ne junni rek nga dëggee ticket teg sa loxo ci kaw appareil bi lépp lu wér yéen sa tànk bés boobu mu génn la ko te bu ñu noppee nag fajal la ko bokk na ci yéen faj diabète asthme fibrome kyste prostate règle douloureuse hépatique rhumatisme trouble digestif nerf impuissance hémorroïde interne externe ndoxum siit articulation waaye itam seen fauteuil bu xarañ bi nga xam ne baax na lool ña fay dem day neeñu am na solo am itam sutura ndax dañoo toog rek bësale sa aw yaram kon képp koo xam ne yittewoo na fauteuil bu am solo ba wala mu bëgg def ah, consultation ngir xam nekk ci yaramam mën naa jokkoo ak soxna maam jaara bësale ci 77 336 33 65 67 391 17 36 ngeen mën kon xéwlu ci ngeen boog ngeen mën a jëriñoo kon euh, euh, yu am solo yu nekk ca Senom ñu ngi ci ñoom Senom ci Touba Ilipor ca Dakar Ngor route des Almadies ca Mbour Karakour Saly ña nga ca Saint-Louis ca Ziguinchor ak ca Kaolack kon yàkkali xabaar boobu yi ma wax leen ni daal coow ubbeeku na ci diggante waa Irak waa Pakistan mu mel ne kon ma nga bi ma ngay gën daal di euh, daal tar foo xam ne daal ñaara jàmm fa jàmm am fa ak a jafe waa Pakistan day ña ngay tuumaal waa Iran ne dañoo faat ñaari xale ki seenum réew ginnaaw ay missile yuñ fa sànni àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci janvier tey ji lañ ko daal di xamle missile yooyu daal moo daal di nag faat ñaari xale yooyu missile yi nag ñu ngi ko sànni ci ci frontière diggante ñaari réew yooyu mooy Iran ak Pakistan attaque boobu yi am nag buñ sukkandikoo ci kaw see xabaar yi nekk ca Iran la wax mooy Iran dañ doon visé ngir yàq ay base yoo xam ne ay combattant fa nekk tey Iran jàppale ay jihadistes xam ngeen ne fan yi dégg ngeen ñu wax leen ca Iran attaque terroriste bu tar bu fa am ay bakkan yu rot waral nag Iran nag di ci wut pexe cible ñam jàpp ne ñoo ko def di leen faat Islamabad boo ko déggee nag mooy kilifay réewum euh, Pakistan ndax foofu mooy Islamabad mooy capitale ba euh, nga xam ne moom la waa Iran wax te këtu sa xabaar wax ko loolu convaincre leen de ne daal léer loolu loolu amut jàpp nañ ne waa Iran dañ leen a tooñ daal di viola daal di def nag violation ci seen souveraineté ñu naqarlu ko lool ne ñu daal lii kenn mënu koo nangu ñoom waa ah, Iran te itam nee ñu lii daal mën naa jur ay conséquences yu dangereux si seen diggante ñoom ñaari réew yi loolu nag avertissement la bàyyi ko ci ministère pakistanais bu affaires étrangères bu jaarale ko ci communiqué ci communiqué boo xam ne daal génn nañ ko ñoom waa ah, ah, Téhéran ñoom daal ñu ngi wax ne daal ñoom attaqué wu ñu benn yoon Pakistan mais nag ñoom la ñu doon def mooy attaqué ñoo xam ne dañ leen ay priorité la ñu nekk foofu yi dina indi jafe-jafe ñoom la ñu attaqué ci attaque boobu nag ñi ci la jur ñaa ñàkk seen euh, bakkan ci fàttali nag auditeurs yi Mouhalim Info Iran ci benn journée attaqué nañu muy talaata démb dañoo daal nag attaqué Syrie ak Iran Syrie ak Irak ci ay positions yoo xam ne kurdistan yi ñoo fa nekk kurdistan yi nag mooy ñi nga xam ne ñoom lay itam waa Turquie di faral di attaqué jàppale itam ñoom ay terroriste waaye itam dafa dem ba àgg fi nga xam ne moo di ca Pakistan itam daal di ko fay ah, daal di fay amal ay bombardement ay positions yu bari ba yoo xam daal démb Iran bombardement yu tara tara tara la fa def daal ci position yoo xam ne nee na ay ñoo fa nekk ñoo xam ne dañuy menacé kaaraangey réewam jamono jooju nag coow li am mooy jamono ji nga xam ne actuellement guerre bi dox ci diggante Israël ak Hamas ma ngay wéy di am tar lool jéggi dayo lool ñi nga xam itam ñoo di Hezbollah itam waxtu nekk ñuy tëkkoonteeg seen digganteeg waa Israël waaye itam Yemen ñu nekk ci Yemen itam ñoom continuer di kar bato yi nga xam ne ñooy jaar ci mer Rouge bi ne duñu daal di dem démb rek am na bato boo xam ne jot nañu ko daal di ah, gàllankoor daal di ko sànni jumtuwaay de guerre ngir mu daal di taxaw ah, ah, foofe di loo xam ne kon daal nekk na lool ma ngay wër gën kon di tar di tàng ci mayonaria bi ci diggante coow li nga xam ne fu nekk rek ma ngi fay ubbeeku muallim ca Cisjordanie Israël faataat na fa ay bakkan Cisjordanie occupé nag suuf la soo xam ne mi ngi nekk ci Palestine suuf la soo xam ne day li fàttali deret turu ci at mii ñu génn ak at mii door dugg te Israël def ko fa bari na lool Israël dañ leen di bombarde bombardement yu tar yeneen ñett ci doomi réew Palestine yu dëkk ca Nablus ca suufu Cisjordanie occupé Israël faataat nañu leen jaare ko ci seen ay bombardement frappe frappe de drone la daal utilisé mu daal di dal ci benn oto ca banlieue bu Nablus jur kon ñett ñu ñàkk seen bakkan ay jàmmaarloo nag tar day dox ci diggante armée bu euh, Israël ak itam population ba dëkk boobu dëkk foofee ngir daal euh, naqarlu gu ñu wéy naqarlu Israël ñëw gëm fa ñëw dëkkal fa seen ak njaboot ak itam dëkk gëm dëkk di leen fitnaalu gi ni mel ñuy xeex léeg-léeg nag Israël moom daf cee dugg daal di leen bombardé di leen faat depuis ba guerre bi tàmbalee ci diggante Israël ak Hamas ak léegi jàpp leen lu ëpp trois cent cinquante cinq palestiniens faat nañu leen ca Cisjordanie occupé ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ca Siso ca Siso dani Israël faat nañu euh, nañu ko fa ci seen ay doom ba guerre bi tàmbaleeg léegi lu ko jiit laata guerre bi tàmbale moom yaakaar naa miinu ngeen ci xabaar yi bëccëg gi may wax ne faat nañ faat nañ faat nañ faat nañ faat nañ ki si doon occupé te waa Israël ñoo ko daal def waaye bi guerre bi tàmbalee léegi moom mbir mi a tar te li ci doy waar comme ni ma leen sax ñoom chronique ci boppam dañuy osé jël ay fital di tiré ñi nga xam ne ñoo di population bu euh, ñu dëkk foofee di lu doy waar mu àllim jaa ngeen jëfati mbokk auditeurs yi Mouhalim Info li ñu mën cee xabaar subaak léegi jeex na tey àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier dëppoo ak juróomi fan ci weeru rajab ñu dig leen dagee ci xabaari guddi gi lu may loolu nag bu ñu amee xabaar bu jant jàmp te jot gi permettre ñu ko ñu leen ko seen qualité mooy sunu sac di nuyu waa groupe information et communication bu bokk ci As-Samadiyya Média Group waaye itam mboolem ñu topp ci yeneen group yi bàyyi ñu kenn di wax ne seen qualité mooy sunu sac wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal njaay yi xawatina mbokki dëkk bu sell ba di Touba ak li ko wër seen jaaxle jeex na ci wàllum essence d'arsan waaw waaw bureau d'essence nekk ca Touba marché Ocass fañ naan marché Frott waaye nag route ba nga xam ne moom lañ duppee oro muy route d'oro waaw waaw xale yu baax yu yaru xale yi am fulla am fayda te nag nekk ay talibé am respect lool ci seen i client waaye nag di leen jox wàcc waay wi ñu yelloo ma ne yow mi nga xam ne da nga yor euro bëgg ko changé def ko CFA yow mi yor dollar bëgg ko sens def ko CFA mbaa sax nga yor CFA bëgg ko def yii ñaax ma ne waa bureau de sens dañ la ciy taxawu nga def ko nam waree ngir jokkoo ak ñoom jokkoo ak sergent bii di Serigne Mbacké Lo ci 77 591 74 17 wala nga jokkoo ak moom ci 76 591 74 17 bureau de sens nekk ca Touba marché Ocass marché Front les immigrants du Baol ça c'est votre sens profitez-vous plus vite waaw waaw loolu laa leen wax de ma ne leen ku yéex ñàkk. xale yi yaru man seenub liggéey moom dañ leen war di seeti di leen nemmeeku ndax ñooy ñi ko yor